àllarba yemook ñaari fukki fan ak ñett ci weeru satumbar mairie bu Hann Bel-Air amaloon na fële ci daluwaay bu ISRA ab lël bu màgg mu nekk jotaayu weccante xalaat ak a yaatal gis-gis mu doon seytu bu njëkk dem ci plan bu yokkute bu commune bu Hann Bel-Air ndaje boobu di ab ndaje bi nga xamee ni weccoo xalaat ak yaatal gis-gis te kii di Babacar Mbengue nekk mer bu commune de Hann amal ubbi comité bi ci teewaayu yi conseil de quartier yi imam ak notable de quartier yi acte yi ak personne de ressources, yi ñu professeur Joseph Sar Yoroba, Ba Mbacké ak Cheikh Diaw ndaje bi nag yóbbal na participants yi ab xam-xam ci document bi di référence pré-diagnostic du plan de développement communal atum 2021 japp 2026 mu nek tamit opportunité ci population wax ak fësal seeni ñaxare ci secteur bu ne ñun nak vraiment dañuy fësal suñu parce que qui wara ubi ubi nako muy le maire de la commune on a besoin de cette caution institutionnelle acteurs yi war ñew tamit ñew nañu te loolu man mi nga xamné man may coordonner processus man docteur Oumar Diokhané da fay dalal suñu xel il faut que acteurs yi ñu yëg ne lii nga xamné dañ koy def ñom and nañ ci def nañ ko seen yef donc loolu lu am solo donc am na ci ay contribution yu am solo wax naa ko légui acteurs yi def nañ ko ci document bi té loolu limay wone moy né commune Hann Belair du commune bu yomb li lii nga xamné mom lañu nam def pour nous def ko am ay matukaay yo xam war nañ ko jël wo nañ acteurs des ñu ay contribution et puis contribution yu am qualité té loolu tamit ñu rafetlu parce que Hann Bel-Air tamit amna ay ressources humaines de qualité té Hann Bel-Air ay ay ressources yi nga xam ont, say ay am nañ ko dañu wara mobiliser ces ressources là mu ay ressources intellectuelles euh, de de de premier plan. ci turu monsieur le maire Babacar mbenga le conseil municipal bi yépp amna ñu sentiment de satisfaction mais di am yaakaar di def un appel aux populations lii du problème politique parce que bu doon loolu dañuy wax ne suñu mandat ngi jeex mais nit dafay xam li muy kii mandat bu ça n'a rien à voir avec document de planification parce que administration c'est une continuité l'État est impersonnel donc euh, les documents transcendent le passage des uns et des autres donc duñ ko war a def maire am vision le conseil municipal bi une vision bi ñu financer ce document là vraiment pour que ñëpp mën ci gap mais nous di appel surtout à la jeunesse parce que c'est ce tax ñuy La jeunesse bi sport c'est important mais nous employabilité des jeunes mais je dis adéquation entre formation et emploi c'est extrêmement important document documents, ont une vision la planification à court et moyen et long terme mais nous y def une perspective yooyu daal taxaw document comme de par le passé mais document bi nga xam si dafay gën a stratégique. ci loolu ñii di wayteewe yi ku ci nekk bi nga jëlee kàddu wax nga sa pas-pas ak yaakaaru askan wi ci lii di plan de développement communal te ci loolu ba premier adjoint au maire di Matar Diaw nekk tamit superviseur étude rafetlu na niveau bi débat bi am te di dalal xel yi te it di xamle que ndaje dafay dem en phase ak li ëmb acte 3 de la décentralisation c'est vrai acte 3 de la décentralisation depuis 2014 Nous de commune bu war plan de développement communal. plan stratégique de développement communal warul mën a ci document la bi nga xam ne si yow war nga voyager maire voyager parce que souvent le maire voyage avec sa commune nous avons système de géomaticien il va nous faire la cartographie des risques sanitaires tout ce qui est patrimoine matériel comme immatériel lepp li nga xamni ci à l'état de projet war nañ ko mëna def document la bi nga xamni chaque fin d'année chaque année bu ñuy préparer bu ñuy def suñu débat d'orientation budgétaire de préparer suñu budget yépp dañ ko ci dugal donc document la bi nga xam si comme fay nekk bréviaire ku nekk mën si jot tey qui préparé doctorat am thèse doctorat wala qui préparer master 2 ñoom ñëpp dañ koy soxlo jigéen ñi tey li la ñuy def yaraax képp si centre bi loolu dañ koy jël xalé yi wax nañu tay am nañu stade stade ba ngi am gazon synthétique mais man en tant que maire en tant que dirigeant du mouvement sportif au niveau de la ville de Dakar damay wax man il faut la relance du sport surtout du football mais il faut la formation donc formation bi à tous les niveaux tay secteur environnement secteur éducation secteur santé secteur socio activité socio économique ak leneen lu mu man de doon yëpp dañ ci wara japp lolou bu ko défé ñu def document bi du document wu mairie document wu ñëpp la bu ñu qui ku ko dañ la koy jox lo ci soxlo bëgg ci liggéey wala bëgg ci def dara dañ donc comme c'est une très bonne question Badou terminer cette tiroir yi jël engagement terminer cette tiroir yi. ndaje bi lu am solo ndax askan wi lañu jox ñom ñi nga ñoo ci jariñu té di am ci